ba tax ba man Babacar xam naa ne maa war tax ba man Babacar xam naa ne maa war raw mbooleem ku lay sant ngir yow rek yaa ma teral xamal ni teelu be diine may gëmub sëriñam jokk ak juram ak mbiram doyloo ko aw ndigalam murit bu yewwoo te dëggal day defub sëriñam ni yàlla jox ko xolam jébbal ko ak setalam fetal ga moo di fexe ñoddee ka jañ ca mënoo bay sikki sab sanga kay léemoo ka doxe di gëlëm murit bu dee léemu boppam booba yor na mbiram nangoo naaw jàngam ak boppam ca ab sëriñam murit bu nangoo mbiram yor jaaji fay la ca war te wàcc ki mbiram saytul keneeni mbiram mooy goo yëgul gën a rëy mooy goo xamu gën a bon lii tax murit bu ne juyoo ko jubal njariñam murit bu bëggee dajeeku jub dajub sëriñam jot ci xolam fawu day muñ mbër mu neeku yiwam tawféex bépp murit boo man di dégg ak a gis waxtaane ab sëriñam doyloo ko yam ci mbiram jabar du waxtaane aw far moo na am muritit burul di waxtaane benn sang kay wuta xam murit jabar jaama ko dak képp képp ku ci wax wax ju mooy kilifaam ak juuma tax na ko xam jabar murit jaama ko dak ñent ñii bu ci ñee ku dul ka am kilifaam ak yar bu rëy bu ñu xam ku dul ka am kilifaam ak yar bu sell bu rëy amul lu dul accam ak cam yal na yàlla yërëm boo dee fexes lëf lu dul sab sang yow sa fagu sab sang dénkoo ko lenn lee nga ñàkk xoram sëriñ balaa sax ci sab xol yow nga sax ci xolam sagat ci lépp lu dul bànneexam ak gëlëm sëriñ balaa sax ci sab xol yow nga sax ci xolam sagat ci lépp lu dul xam bànneexam ak gëlëm